du lobs dafa am lu mu bind ñii ñu mu ñii ñan la. ay responsable politique lañ. ñii la ñu ne yeewi c'est fusure. Mhm. ñii ñana responsable Pastef ñii lañ ñu ñoo génn de ci yeewi ñu ne yeewi tas na lobs nee na yi tas na ñii ñana ñii ñan da nga leen xam yow ko Assane kii ci digg bi kan la ñu ma wax moom la kii ci digg bi kan la waaw balaa moo doon ñëwaat kii ci digg bi kan la. xam nañu leen. kan la est-ce que ab jàngkat. <laughs> <laughs> bu. est-ce que loolu la. waa di ngay def. <laughs> Modou waa dimbali waa jox ko balaa Modou kan mooy jàngkat bi <laughs> borom garaam bi borom kos bi kan la. borom kos bi kan la. jàngkat lay bi laa. Ah. kan la. est du ab jàngkat laa. waaw borom grand boub bi. man daa xaar ba ñëw si ba laaj ma. ay <laughs> ca euh, Assane. Hmm. ñett ñi de la lob tiitre ñu ni yeewi tas na. Hmm. bi nga xëyee jot ci xabaar boobu boobule euh, revi nañ ko loo ci jàngat. waaw kontaan rek. ci tas gi mu tas. waaw. Mhm. xam nga yeewi askan wi day day day am kuréel goo xamante ni dafa bari doole. Mhm. nekk ci réew mi sawaay booloo luñ teg ñu ni ko fuuf euh, léegi nag loolu moo mën a ñàkk léegi nag bu fekkee ne gis nañ ay responsable politique yu tool nii mhm. kii mën naa am kenn ki mën naa am mu bokk ci Pastef kenn ki mën naa am mu bokk ci Eh, waa waa kii nu mu tuddati sax mos kii Khalifa Sall ñi waa taxawu yi kenn ki mën naa mu bokk si si waa Pire ñoom ñett ñëpp ñu ba benn génnandoo loolu loolu tawféex la yoo xamante ni mën naa gën a tas Yewwi te kon day gën a baax ci réew mi gën ñoo dooleel en tout cas daal nañ ko defee nii lépp lu ñu mën a jàbulise nañ ko jàbulise lépp lu ñu mën a yàq nañ yàq ndax ndax ndax ñu mën a gën a continuer nekk fi ñu nekk mu gën a baax incha allah. ah nañ yàq daal waaw comme neex def lu la neex. yàq aram na kay. nga ni si yàqin comme neex daal defal lu la neex. yàlla nee na wala tufsidoo fil ardi ba'da islaahihaa. waaw léegi nag. bu leen yàq suuf si ginnaaw bi. nga bàyyi ko bu firi ko parce que ah. Ah. léegi suuf si xam nga tey jii nga dem si géej gi sax nga tàng ndox tuur ko te deewoo ko dara yàq la mais lii dañ koy doyee dara. d'accord lii du yàq lii ñu jabul si bii baax na. baax na baax na kay. da yaakaar ni dañ ko def noonu rek pour noonu. ay ca mukk mi ngi noonu euh, euh, bala ma dem ci saa ku ñuy wax yaat ma barxaam yaat ma bàyyi leen deforme mi ay waxi nit sooy bu waxul Baye Niass dafa daw dem Nigéria Assane Mesere laay rectifié ni ko Baye Niass demoon na Nigéria lan la fa doon wuti ak lam fa amoon ba dellu siwaat waaw man dama rectifié Assane ka Baye Mbaye MC dawul bàyyi leen di defar ay ay waxi nit naan euh, rectifié li nga wax Baye Niass dawul dem Nigéria bàyyi leen di wax yàq waxi jàmbur voilà mi ngi noonu alaaji Euh, yeew yi de nee nañu tas na tasar lob soo ko bind ndax am na ñett ñu fa génn daal ñoo xam ne kii asaneen ab jànkat la xuma lan la waaw xam nga peut-être dañoo wax seen bëgg-bëgg xam nga léeg-léeg nit bind bëgg-bëggam li mu bëgg waaye bu la wanee li tax mu bëgg wax loolu doo comprendre lan mooy sabab bi xam nga da ngaa ay question ne ñii ñooy ñam. waaw ñaanal ma leen. waaw même bu ñii nekkoon ñoo xam sax mënta tas lu tasu ah alaaji nag xam nga dama la dama bëgg a xamal benn affaire mooy xam nga tey bu ñu ne woon yeewi Khalifa Sall génn na fa ñu ne yeewi Habib jóge na fa Déthié Fall jóge na fa parce que pour man ñooñ ñooy ñi nga xam ni euh, daanaka ñoom ñooy figuru yeew yi hmm. comprendre ay ay dëmbooj et cetera ñu ne la ñooñu jóge na fa bu boobaa bu ñu la waxee ne la yeewi tas na bu boobaa doo poser question sax parce que mhm. soxlawul sax ñu di ko bind mhm. parce que yow ci sa bopp da ngay yëg ni lii kat ànd wi tas na mais bu ñu la indilee ñoo xam ne xamoo kii mooy kii wala kii kan la nga naan kii kan la asan naan la ab jàngkat la mhm. xam nga <laughs> est-ce que ba noppi ñu bëgg a wax ne yeewi tas na donc dafa mel ni ñoom liñ soxla ci wax ji du lenn lu dut ye baatu yeewi tas na lu ñu mën a tiitaree mbir mi loolu rek mooy dellusiwaat parce que pareen saa yi gars yi li ñuy soxla mooy lu ñu solalee mbubb lu ñu bëgg a wax rek léegi moom ki koy dégg rek bu ñu nee yeewi tas na lekk nga daal dee gis li nga xamante ni bii euh, mooy loolu xam nga tey bi may ñëw euh, damay déglu euh, kii nu mu waa kii. waa Zik Zik kii Zik. Sen TV ma dégg booy boobu Mame Mbaye Niang la tudd Mame Mbaye Niang la tudd. defe naa. mu ne mu wax mu wax defe naa li Bougane kii da nga ko dugal ci biir kii waaw mu ne buggaan xaw ma dénoncé na xaw ma quatre vingt yoo xamante ne bi dañ ko leb dugal ko ci beneen compte mhm. du dëkk xam nga loolu lu baax la parce que loo xamante ni bi dénoncé yooyu euh, lu am solo la te it lu ñu war a creuser la daal di loolu mu ne opposition bu mel nii la ñu bëgg opposition boo xam ni doo fi nekk di woote xeex ak woote xuloo maanaam euh, dañuy mel ni li tax nit ñi di jéppi am sax ñoom ñoo koy def te buggaan jàpp naa ni santu leen ko parce que waxoon na ko ci seen kii bi ne leen santuma leen ngeen propagandal ma moom moo ko wax ci seen antenne bi ñu dégg waaw mais booy boobu ah, yow mambay moom nga xam ni kenn xamul ab loolu muy wax noonu ah. maanaam yaa ngi wax yaa ngi gaaruwaale ah. yaa ngi def loo xam ni xam nga nit ñi dañuy dem ba gis ni hmm. am na ñoo xam ne dañuy toog fi ñu toog dañuy wax ne buggaan a leen ko sant yaa ngi dégg te fekk ne peut-être sax buggaan santu la ko mais yaa ngi koy yàqal tey buggaan def na loo xamante ni révélation la boo xamante ni bu am solo la mais waxal li nga xam ni moom la def du dëgg mais boo ci yokkee naan opposition bu mel nii lañ bëgg waaye kaay leen xeex kaay leen def lii kaay leen def laa donc yaa ngi wax yenn mais bu fekkee dañuy dénoncer ba noppi te li ñuy dénoncer duñ ko xeex ban njariñ la am bu dee dañuy dénoncer gouvernement bu fekkoon dañuy dénoncer rek daal di noppi bu mais li ngay dénoncer kañ war a teg ay jéego pour xeex loolu lu mel nii bañati fee am du dëgg donc mais il faut que nit ñi parfois euh, am noo xamante ni bi noonu la ñuy euh, noonu la ñuy kiiwee parce que man jàpp naa ni parents yi mën nañuy bañ lu nit sax mm-hmm. euh, defe ne ñi ngi koy defaral fekk ñi nga koy yàqal donc il faut que mu xoolaat bu mm-hmm. baax a baax ni nga xamante ni bi noonu lay waxee parce que te da lay wóor ne la yenn yi du ngëm-ngëm mm-hmm. xam nga lan la maa ngi liggéeyal waa ji man lay fay rek naa comporté woon yi mais loolu bu fekkee ne noonu ngay comporte woo kon yow bul critiquer ministre bi nga xam ne Macky Sall jàpp na ni moo koy fay rek moom it muy ànd ak moom di ko défendre parce que yaak moom benn ngeen voilà loolu mooy li nga xam ne man alaaj nag tooñ nga ma nag waxi Mame Mbaye moom ngay ñëw di ko non mais parents yi xam nga ndaanaan ni ñu joxee noonu il faut que nga leen di loolu parce que man dama jàpp ni am na ñu bari ñoo xam ne peut ñi ngi contre Bougane ci ñooñ lañ koy jaar Mame day liir day tiim li mu war wax ko de dugal ci ay day tax ñu xeeb kilifaam. Hmm. waaw voilà waaw xam nga loolu la quoi moom dafa jàpp ni da koy jàppale mais jàppale wu ko da koy hmm. da koy kii man de bu ma doon bugaan dinaa ne ko bul di ma dugalati ci say yi waaw bu ma waxee dara boo sa waxee ba pare demal ci leneen waxal ci kii dem